asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax te leen di jaare di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko te wéral ko ak mboolem rakkam yu mbokkal bu ndëkk Sëriñ Tuubaa yëpp ak mboolem jullit yi ak mboolem taalib yëpp ko ñaanal jëwriñu kër Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Abul Baraka ak mboolem jàppal Cheikh Mamadou Fadal di leeral ci kasuraay bi nga xam ne ñu bari doon nañ ko laaj mu bëgg koo def ab audio rek mu gën a jàpp ne ci leeral ko ñépp léegi ci gannaaw toog son àndoon na ak Cheikh Abul Baraka ñu dem ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak Cheikh Sëriñ Abibu seex Mor Fadal ak Alxaaji Falilu Jóob ñu demee ci bi sëriñ bi ne ko sëriñ aboo ne ko ñun de dañoo ñëwoon doon fàttali bisub Cheikh moom bu faaral boobu muy màggal ko sureeb te ñun fas ne yéene suñu lépp ci ndigal lañ koy ci ndigal lañuy wéy ci ndigal lañ koy tënk ndax fas yéene dara fas yéene doon dara lu dul ko fi nekkal sëriñ yu jokk suñu lépp te bàyyi ko lépp sëriñ Muntaxa ne ko jox naa la ndigal soo demee nañ ko defe woon daaw rek nañ ko defe noonu ndax kasu daa daaw moo ëpp woon yëf xam nag yëf yi mi ngi wéy ba léegi joxoon naa la ndigal na ma ko joxoon daaw nañ ko wéy la noonu kon ñëpp xam na nañ màggaloon Kazu Rajab daaw noonu lañ koy màggal ren ñu ngi ñaan yàlla ci barke Seexul Xadim barke Alaaji Fallu mii borom bis bi ñu yàgg ko fekk yàgg ko teewe te yàlla jële fi gàllankoor yi yëpp bañ delloo ko def ko nañ ko daan defee ci barke Seexul Xadim barke Alaaji Fallu